jërë jëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre euh, ci biir réew mi ak ci bitim réew mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool ci image bi nag moom mooy euh, Ali Haïdar Ali Haïdar nag xam ngeen ne fan yi ñu génn euh, dañu ko daal di dàq ci agence bi ñu ko dénkoon Ali Haïdar moom mooy leaderu fédération démocratique des écologistes du Sénégal Euh, ñu dénkoon ko li nga xamante ni day mooy agence de la muraille verte Ali Haïdar moomu nag fan yi ñu génn dañu ko euh, limogé ci ab conseil des ministres euh, jël agence boobu dénk ko ku ñuy wax Oumar Abdoulaye Ba di ab ingénieur mbokk yéen yi nga xam ne yéen a ngi ci Bawol Info TV dañu seq waxtaan nag ak Aliou Sané ñu gën koo xam ci To Sané To Sané Euh, di ab responsable bokk ci fédération démocratique des écologistes du Sénégal euh, nekk fii nga xamante ni tey moom mooy ci Médina moom la ñu euh, seet si tey bëgg waxtaan ak moom ndax bi ñu dàqee ay Aïdar ba léegi gisuñu benn réaction de soutien boo xamante ni tey am na ci cadre yi nga xam ne tey ñoo ko waroon mu mel ni frustration dafa am ci biir fédération bi Tho Sané maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jii li baax daal Euh, naka koor gi. waaw ñu ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla mu nangul suñu koor gi nangul ko boolam jullit. Euh, may am mbégte bu baax a baax euh, Aliou Sané To Sané saa suñu bëggee nga àddu rek vraiment nga yombalal ñu ko mais To Sané fan yi ñu génn dañu gis ne ci conseil des ministres bi président Macky Sall dafa dafa jël décret. Euh, limogé dindi Ali Haïdar mi nga xam ne tey moom mooy seen leader président Macky Sall dénkoon ko agent sénégalaise euh, de la grande muraille verte et de la reforestation euh, ñu limogé ko lan moo ci sa sa sa réaction. waaw damay wax ne ñun méttiwul nañ ko méttiwuñ ko ndaxte Haïdar bu ñu doon déglu peut-être du yegg fii parce que ay nit. kon dégluwu leen woon. déedéet parce wax nañ ko waxaat ko ay nit ay góor boo leen di ànd dañuy ànd def ni wat gaal yëgoo di yëkkatindoo di tegandoo te yaakaar naa ne ay daar fi mu jaar yëpp man defax naa moom lu ëpp fukki at si biir parti bi te foog naa ne fukki at foo ko def consultant nga fa ma yaakaar na nit nag buñ la wóoloo dénk la yaax ñi nga àndaloon danga leen war a jël teg sa wet parce que wax dëgg yàlla ñun buñ ko falee rek dañ ci war a gis suñu bopp. kon yéen métti luwu leen dàq gi. ah ñun dañuy gis ne rek noonu la mu noon demee. mais est-ce que yéen euh, du yéen cadre yi ñenn si yéen sax yéen a dàqalu Ali Haïdar ndax yow def nga si ay sorti euh, ñàkk euh, rafetlu doxinu Ali Haïdar ci biir fédération démocratique des écologistes du Sénégal nga yàgg ñaawlu tamit euh, doxalinu euh, Ali Haïdar ci biir Benno Bokk Yaakaar ak yenn sorte yoo xam ne say yeneen confrère ci fédération bi def nañu ko est-ce que du yéen yéen a anticiper dàq ko Ali Haïdar waaw xam nga Haïdar ku ko xam da nga ko xam si wàllu défendre environnement te ku ne environnement da nga naan ñëpp parce que ñëpp si bokk waxatuma nag ña nga àndal ba am loolu ñoo àndax moom mu dégg ministre du njabootam ñoo àndax moom mu déggaat ministre dégg directeur kon yaakaar naa ne tey buñ ko dénkee dafa war a gestu ñi mu àndal soo xoolee campagne bi passé muy municipal yi mais Macky Sall dafa soxla woon ñi mu àndal yëpp jàppale ko président yi dafa bëggoon ñu gagné gox yëpp mais Aïda déggu leen ko ba élection yi jeex mu dem TFM RFM dafa wax ne jàppale na benn femme bu nekk Casamance man yaakaar naa ne kilifa boo àndeex ay nit nga nekk responsable national booy jàppale ñëpp nga war a jàppale. te Macky président Macky Sall dafa ne woon ñëpp ñi bokk si moom bokk ci coalition bi yaa xam directeur yaa xam ministre yaa xam député yi ku mu munti doon da ngay jël sa alal jël sa xel. waaw mais local yi est-ce que Ali Adar impliqué wu na bu baax ci ci ci ci ci benn bokk yaakaar. déedéet wax dëgg yàlla dégguñu ko si yëguñu ko si jàpp si. est-ce que jàppale na yeneen leader yi bokk ci fédération bi ci gox yi nga xam ne tey euh, ñoo fa nekkoon doon politique. amul benn leader excepté RFM nga xam ne moo dëkk dëkk bi mu nekk Casamance nee na kooku la jàppale ñun loolu ñu dégg waaye bu dee parti bi du du du fenn si Sénégal. kon jàppale ku ay daal jàppale. te te yow yaay coordonnateur au niveau de Dakar. maay coordonnateur au niveau de Dakar boo demee région yëpp maa ko wax fii di ko confirmer te waxtaan nañ si ñun ñëpp ñëpp confirmer nañ jàppalewul kenn. mais mais frustration dafa amoon ci biir fédération bu yàgg. moo tax sortie yi ma def yépp wax naa ko si avertir ko. waaw mais loolu moo tax ma ne yéen est-ce que du seen sortie moom moo ànd moo tax ñu dàq Alioune Dar. waaw parce que nag président Macky Sall foog naa ne homme politique gënu ko expérimenté day déglu nit ñi kuy ànd ak moom da ngay ànd ak moom tamit pour ñu jëm kanam waaye paa ñu dellu ginnaaw yaakaar naa ne président Macky Sall dégg nañu dégg na doon ñaxtu ba bu yàggul rek semaine bii am na suñu benn responsable bu nekk yëmbal bu présenté démission maa ngi si fas yéene sax dox tànk mu ñëwaat réunion nag nag dimanche man teewuma fa waaye soo xoolee suñu biir groupe bi ak daje yi ñu jot def ñëpp ñaawlu nañu taxawal ay daar ah. gëj na woote réunion gëj na teew réunion. ok te yaakaar naa ne loolu ñëpp constaté nañu. mais bi ñu ko bi ñu ko euh, limogé euh, jëlee ko ci fi nga xamante ni tey <coughs> euh, moom mooy agence de la muraille verte gisuñu benn leader wala benn jeune. bu bokk ci fédération démocratique des écologistes du Sénégal wala sax ay femmes amul kenn benn instance ci seen fédération bi ñu jóg euh, defendre au moins ay daar wala téel ko tànk waaye limogeage bi euh, dafa mel ni euh, mbégte la ci biir fédération bi. laaj ab laaj non xam nga du ma ne sax mbégte la waaye dëgg la gisoo kenn déggoo kenn ku jóg jàppale ko ku jóg wax si. lu waral loolu. waaw parce que tamit ñun yëgu gisuñu suñu bopp si ànd bi ñu ànd ak Aïda ànd ci dàq bi non dañu gisul suñu bopp si ànd bi ñu ànd ak moom wax dëgg yàlla mais mais au delà gisu leen si seen bopp mais moom bokk na ci coalition Benno Bokk Yaakaar dëgg la est-ce que tey dugal na loxoom ci biir Benno Bokk Yaakaar est-ce que tamit tey plaideel na waa fédération bi ci ci ci ci ci kaw déedéet dugalul loxoom si Benno Bokk Yaakaar bi dugalul loxoom si biir parti bi élection yi passé moom Aïda dugal si loxoom man mi Medina maa iti samay moyen personnel ñëw jàppale coalition bi fii jàppale samay ñi ma àndal man maa it samay moyen ñëw jàppale leen. waaw mais dañoo gis ne xam du uh-huh. koor du tabaski du ngénte du dëj du dara loo xam ne ay dara dina si dugal loxo mu wax dëgg yàlla te nag kuy wax environnement da nga war a am yërmande da nga war a di bokk parce que environnement ñëpp si war a jàpp. kon dama gis ne. kuy wax environnement da nga war a am yërmande parce que foog naa ne booy wax ne acteur de l'environnement nga da ngay liggéeyal aalam bi waroo nekk yow kenn rek ñu lay gis yow kenn la ñuy gis si tele yi yow kenn la ñuy dégg ngay wax yow kenn la ñuy gis ngay dem te pourtant ñoom bi mu jiitee di association bi mu jiitee woon njawootam ma nga fa ñu ngi ci yeneen ñu ngi leen di dégg ñoom ngay gis la gis télé yi loolu ñun ñu naxarlu ko Macky Sall invité na ko sax journée de l'arbre fii Palais Palais mais ba mu demee doomam la àndal te ñun bu ñuy campagne gisuñu njabootam bu ñuy xeex gisuñu njabootam bañ koy fal ministre ñun la àndal bañ koy fal directeur ñun la àndal. waaw mais dañu dañu dañu déggoon benn avant que euh, ñu koy jëlee ci ci agence boobu am ñu defoon sorti wax ne président Macky Sall Ali Aïdar nekkatul seen interlocuteur. waaw am na suñu benn jeune boo xam ne ñu koy wax BA tout récemment def na benn sortie ci RFM. wax ko ñaawlu ko xamal ne président Macky Sall ay daal rek du interlocuteur du FEDES fédération démocratique des écologistes du Sénégal te bu ñu demee ba jeunes yi jóg ay jigéen jóg ñu mel ni man jóg wax ko parce que ñun du ñu waxantu constat la ñu def te foog naa ne tak politique dafa laaj maslaa dafa laaj waxtaan mënoo jiite ay nit te doo woote réunion siège sax amuñu ko te foog naa ne ay daar ñàkkul lu mu ñu jàppale ñu am siège. mais est-ce que kon am na considération ci non loolu la ñu gis nag constat boobu lañu gis dañu gis ne amul considération te li muy wan sénégalais yi li muy wan nit ñi wax dëgg yàlla ak li mu ñuy wan ñu ko jege wuute na lool lool lool Aïdar man man bi ànd ak moom lu ëpp fukki at li ma gisoon si moom mooy nit koo xam ne li muy wootee ku koy wootee da ngay laa biir ku koy wootee dangay bugg bokk ku koy ku koy wootee da ngay bëgg a associer ñëpp parce que environnement da ngay fexe ñëpp bokk si te Aïdar di ko président Macky Sall dénkoon ñëpp xaj nañ si Sénégal yëpp xaj nañ te foog naa ne buy liggéeyal Sénégal ñun ay sénégalais lañu bokk si ba pare ànd moom politique ak moom ba mu am loolu kon yaakaar naa ne waxuma nag dañu war a séddoo gâteau la waaye balaa ngay laax jaay nga laax lekk ñàkkul nag benn ñaari nit yu mu jël teg si wetam mais am nañu nañ jóg défendre ko ñàkkul tamit ñoo xam ne nekk nañ si wetam mais dañu mënul wax mais suma gars yi réunion yi ñu mujj a def yépp yaa xam si suñu groupe whatsapp bi la yépp amul kenn ku rafetlu ni Aïdar di doxalee ñun ñun ñëpp d'accord nañu ne wax dëgg yàlla Aïdar dafa war a taxaw parti bi te taxawul parti bi te gëj nañ ko dégg mun naa ne def na bañ ko falee ba léegi ci direction agence bi mun naa ne boobu ba léegi Aïdar wootewul réunion. kon da jàpp ne amul lenn lu mu apporteel Macky Sall ci sur le plan politique. mais bu ko defoon ma wax ko te bu ko defoon sax Macky Sall la wax ko gërëm ko sant ko defu ko dama ne la. ku bëgg a jàppale Macky Sall dangay dem si dëkk yi ku bëgg a jàppale Macky Sall da ngay jàppale askan bi ku bëgg jàppale Macky Sall da ngay dëgëral sa parti parti dafa war a yokk waaye warul wàññeeku te ñi mer bari na mun naa ko lim boo jëlee Diallo Kabada yor association de volontaires de l'environnement nga xam ne jot na fi prix de députés jot na fi Nations Unies nga koy financé soo demee Kabata def na fa tali def na fa ay làmp ñoom jigéen ñi fa nekk sax moo leen organiser ba ñu tabax eaux et forêt jàll moomu bàyyi na nga dem feneen mun naa la citer ñu bëri ñoo xam ne tey frustré nañ ba bàyyi si parti bi madame Jigal Awa Jigal nekkoon président FENAS les femmes les femmes transformatrices des produits halieutiques bàyyi na mun na mun naa la limal du jeex Lamine Sow adjoint maire aux HLM bàyyi na jeune dikkoori bi nga xam ne moo nekk Kolda àndox maam boobu ba jaayoo ba gañe ñun dikkoori boobu ñëw négocier naxante sax ba mu ñëwaat mun naa limal lu bëri si parti bi ñoo xam ne ñëw nañu dem te dama gis ne ay bu leen bëggoon téye dina leen téye kilifa nag munoo yor njaboot ku ñëw dem ku ñëw dem menn saani mi ñu doon wax avocat am ak ñeneen ku mel ni Djibu Diop wax daw di yàlla ñu koy encouragé ah, di suñu secrétaire administratif ak ñeneen ñëw si téye ah di rey suñu bopp waaye terewul aydaar daar téye fu mu téye rek mel ni kuy defante ah mais ñu gis te tamit agence ba mu nekkoon ñoo xam ne politique ñu nekkuñu fi woon sax la jël ñu si ëpp teg si wetam ñun ñi nga xam ne ñoo doon reyanteex moom ba mu am loolu ñu si ëpp mu jël leen teg nële ma ñaawlu ko du benn yoon du ñetti yoon du ñaari yoon wax naa ko si groupe bi wax nañ ko ko si groupe bi yónnee naa ko ay vocal toog nañ waxtaan waaye mu mel ni daal moom politiqueul mu mel ni politique parce que yenn yi du politique politique wut nit la waaye du fexe ay nit di dem te ko bëgg a jàppale président la république nga bokk coalition benn boo ko yaakaar bokk si mouvement présidentiel da war a dem jàppale président. élection yi jàll nag dégguñu ci ay daal gisuñu ko ba élection yi passé mu dem di ci wax RFM te dafa ne woon dafa feebar ñu ñaawlu ko lool parce que yaakaar naa ne boo bokkul si dara defoo ci sa dërëm te lu bon bon bon. da nga ci war a maanu. ku mel ni cuun di honorable nekkoon suñu représentant Rufisque naxante na ba ñëwaat sax lépp pour jàpp si taxte meroon na ay daal ba dem mun na naa la sital du jeex te loolu ñii ma lay sital yëpp di tudd ay tur xanaa man waxantuwuma bëri na wallahi mënuma ko cité nga dem maa liggéey bu Linguère nekk kilifa bu rëy foofu ay daal ñëw na fa agence bi maa liggéey ñëw teer ko ak nitam te Aïdar waxu ko maa ngi ñëw ba ñu ñëwee tamit ba agence bi di joxe ay t-shirt sax di may t-shirt xanaa maa liggéey ak ñi mu àndal du ñu kenn joxu leen t-shirt Aïdar di wër Linguère dugg si ay kër di nuyoo ji di di seeti ay nit fanaan fa sax maa liggéey gisu ko loolu rafetul nit kenn du ko def noonu maa liggéey fa la jógee bàyyi wax wax bu bu dëgër doo ko bàyyi ma jàpp si ndaxante ba léegi maa liggéey ñëwul kon nga gis ne daal vraiment ñun parti bi ñun ñëpp. dañu mer ba mu nekkee ministère de l'environnement ministère de l'environnement ñu bëri ko fa mere ba si agent yi am na si ñoo xam ne waxaat nañ man parce que ni muy doxalee ak li muy li li nga xam ne moom la ñu yaakaareen ay daal ni ñu koy gisee su su télé yi si si ni muy waxee si rajo yi dañu ne kii nit ku oyof la ku tijjeeku la ku mun a maslaa la. alors que alors que dans les faits et dans la pratique wax dëgg yàlla man jii xam nga ma man du ma waxantu ay daal su defoon li mu war a def ma wax ko. mais li mu def laa wax wax dëgg yàlla. jërëjëf euh, Aliou Sané. maa ngi lay gërëm Jiri Baxdaat di la sant di di la ñaanal di wax ne tamit kontaan naa si Baol Info gis nañ sa liggéey parce que yow tamit dëgg rek ngay seet. te wax dëgg yàlla lu yanuwul maanaa xam nga lu yanu maanaa xam nga.